jaajëf ñu ngi leen di nuyu di leen kontaane di rafetlu bu baax a baax seen àndina ak suñu programme sur la buzz du web la chaîne des leaders Senbuzz TV ñu am mbégte di waxtaane lépp lu leen soxal ci seen dundin ak seen nekkin tey nag ñu am jotaay spécial ak benn ndaw bu ñuy wax ah, Serigne mbay Niang docteur ñu xam ko ci li nga xamee ni mooy faj ak lépp roo xam ne rek aju na ci lasraar Serigne mbay Niang docteur moom la seen Senbuzz di am ak jotaay ah, Serigne bi Niang docteur ñu ngi am mbégte di la gërëm baax ci dalal bi nga xamee ni ah, dalal nga ko waa Senbuzz TV auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalina seydina muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi din Euh, ku baax ñu ngi lay nuyu di la ziar di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah ci dalal bi nga ñu dalal macha allah ci seen bës. jërëjëf Serigne Mbaye Niang la Serigne bi li ñuy wax lasaraar suñu borom may la macha allah nga ciy yëngatu mais ñu bari ci askan wi tamit am équation bëgg xam li nga xamee ni mooy moom la ñuy wax njabar ki nga xamee ni liggéey nañu ko ba mu jàpp ko Serigne bi ñaa naka nga koy faje waaw njabar lu fi yàgg la. Mhm. ndax euh, yàlla wax na ci alquran ne. واتبعوا سياتين ما تتلو واتبعوا سياتين ما ma على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر maanaam jinne yu bon yi ñoom ñooy xamal nit ñi njabar boo jëlee bant bi boo jëlee reen bi boo jëlee baat yi boo waxee nangam nangam nga def njabar ab mm. jullit nag du njabar ndax yonent sa sallallahu alayhi wasallam wax na nit du nekk njabarkat lu dul dafa weddi yàlla ci wax wala si jëf te yonent bi aridu alayya riqaakum la baasa bi ruqyati ma lam takun shirkan bépp xeetu faj bépp xeetu ñaan dagan na fekk amul bokkaal yàlla waaye nag njabar dafa nekk loo xamante ni bokkaal la gën a jege parce que yaa ngi composé loo xamante ni ay jinne ñoo la koy sant nga koy def benn ngay tuur deret ci noo xamante ni doo tudd yàlla te lépp loo xamante ni da nga koo rey te tuddoo yàlla loolu ci njabar lay dellu njabar dafa nekk loo xamante ni mbir mu yaatu la moo fi jëkk alxuraan waaye bi alxuraan ñëwee da ko dégagé ba mu deñ waa banu Israil Firawna ak gaa yi àndoon ak ñoom ay njabarkat lañu woon moo taxoon ñun notoon àdduna bi notoon nit ñi di leen def lu leen neex yàlla indi yonent yàlla Moussa mu ñëw effacé loolu kon njabar mbir la moo xamante ni lu am la. Hmm. Sénégal nag fii ñu nekk njabar dafay bari trop léegi nag njabar dafa bari ay xeet. xeet yi njabar yi bu ko fi doon yaatal du fi xaj ndax émission bi day day gudd mais njabar mbir la moo xamante ni lu am la te nit du nekk njabarkat loolu dafa weddi yàlla képp ko gis mu ngi njabar. wedd na yàlla ci wax wala si jëf ndax dina wax baat boo xam ni bokkaale yàlla la wala mu jëf loo xamante ni yàlla da koy tere mm. kon njabar mbir la moo xam te ni ku mu dal soo ñëwee si saa si incha lañ koy dindi ndax kon kon kon kon ku ñu njabar tamit na saafara soo xam ni Souleymane kii di docteur Mbaye Niang moom am na saafara boo xam ne ki njabar jàpp bu ñëwee ko ko waaw njabar mbir la moo xamante ni maanaam du dara ndax ina kay kayda seytaani kaana fan yàlla nee na pexe seytaane dafa lompoñ maanaam seytaane amul kàttan ci kanamu suñu borom alxuraan am na ci ay saar ak ay aayaat yoo xamante ni ku ñu njabar ak ku la mënti njabar soo ko sangoo benn fan njabar bi dañ ak ku la mënti njabar ak lu mu la mënti njabaree njabar nag nekk loo xamante ni dafa garaaw ndax lu tax garaawul ba alxuraan ñëwee da koo dégager waxul jaaxal xaq wa zaaqal baatilu innal baatila kaana xan te njabar baatil la kon képp kum daal incha allah buñ ci jokkoo ak ku la mënti njabar ak fu mu la mënti njabaree dina dañ incha allah macha allah macha allah muy Serigne Mbaye Niang docteur Serigne bi lenn loo xam ne soxal nañu bëree bëri ci askan wi muy li ñuy wax faru rab boo ñu doon tekki lan mooy faru rab waaye tamit ndax des na ko saafara moom tamit lii di faru rab waaw mooy wax faru rab mhm. olof lépp lu ko jaaxal rek danaan faru rab mhm. wala mu ne rab su dara dee yëngatu fii sax wala mhm. la maanaam faru ci góor ak ci jigéen yëpp. ah d'accord d'accord kon góor ak jigéen yëpp lay dal da koy am. Mhm. jinne moo am. wa iz qulnaa lil malaa'ikati usjudu ilaa aadama fasajadu ilaa iblis kaana minal jinni maanaam jinne moo am. waaw rab dafa nekk loo xam te ni lu am la. maanaam yàlla daf ko saxal ci alquran. wa iz qulnaa lil malaa'ikati usjudu li aadama fasajadu ilaa iblis kaana minal jinni iblis cosaanam jinne la. Mhm. kon bépp jinne bu bon rek iblis ci njabootu iblis nga bokk. Mhm. jinne yooyu nag ñooy dugg nit ñi di leen yàqal. di tas sëy yi di tàqale diggante ñaar ñu ànd di dofloo nit di defloo nit ki safaan mhm. jinne yooyu nag ñetti xeet lañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax mhm. abi suxlab alxasan yu moo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jinne ñetti xeet xeet xeetu xeet yi la am xeetu jinne bi ci njëkk ñoom ngelaw la ñuy nekk mooy ngelaw seetaane yi ngay dégg di man ngelaw damaa jàpp nangam nangam daa am luy daw sama yaram bi te ma ko beneen xeet bi ay jaan lañuy nekk ak ay jiit ak ay muus ak ay xaj beneen xeet bi dañuy mel ni comme jëmmi nit di jóg di dem di toog di ñëw. Mm-hmm. loolu mooy jinne jinne nag comme jàpp am na ay mandarga yi yi wane ne yow mi jinne dalaa jàpp. ndax yan yan mandarga nga ñu si mën a baaxee. sëriñ bi tam jinne yi mi wane ne yow mi jinne dafa nekk ci yow. Mm-hmm. képp ku mu jàpp soo tëddee guddi di nelaw da nga yéeyante sa bëñ yi di ko dóor di ko màtt. Mm-hmm. bi ci topp jinne ku jàpp da ngay gént dangay nelaw di gént mel ni da ngay jógee fi kawe di daanu si suuf. jinne kum jàpp dangay ngay génn di nekk ci ay da ngay gént di nekk ci ay armeer lu bari jinne ku mu jàpp da ngay gént di sëy lu bari jinne hmm. képp ku mu jàpp da ngay génn maanaam sooy nelaw guddi hmm. da ngay nelaw ak a te da ngay tiit par guddi te am na gént yi nga xamante ni soo koy gént rek xamal ne jinne moo la jàpp bokk na ci gént jaan lu bari gént xaj lu bari gént njàppaan lu bari gént giléem lu bari gént yi ku koy gént ñu lay dàq ji wala ñu topp la rab moom moo nekk ci yow ba noppi rab bu la jàppee bokk na ci signes yi wane ne yow mii jinne dafa nekk ci yow da ngay gaaw a mer kenn du la def dara dangay ngay yeewu rek sa xol di tàng te kenn du la def dara ba pare doo mën a toog si benn bërëb bu dee bërëbu liggéeykaay la bu dee sëy la bu dee am njàng la da ngay toog si école bi sax sa xel mi naw wala nga toog bërëb bu liggéeykaay bi xel mi naw loolu jinne moo koy def te jinne moomu fi muy dëkk ci doomu aadama mooy ci bopp bi ci yuur bi allazi allazi yataxabatuhu cheytaanu min al masi boobu yàlla wax ci alquran seytaane day dugg nit ñi masu boobu da leen di jàpp ñiy daanu di yuuxoog di jógoo ko daanu beneen bi ci topp mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne inna seytaane yajri min ibni aadama majra damm jinne day daw ci deretu doomu aadama comme ni dereetam bi dawee si biir siditam yi loolu mooy waral mu mën laa manipuler. signes yi ku mu nekk si yow rek demal nga faju ji ndax da ngaa am jinne ndax feebar bu nekk dafa am mandarga. mandarga yi mooy mandarga yi ku am. macha allah mais feebaru rab moom ak euh, ki nga xam ne mooy Serigne Mbaye Niang docteur moom bu ñëwee ci moom man na ko mën na ko faj li jëm ci rab ak lépp lu aju si mbirum jinne. waaw xam nga ñaari ma teqale ñaar. Mm. koo xamante ni dañ koo boole jinne am na xaatim yoo xam ne boo ci dugalee nit liit la da ngay boole nit ki ak jinne jinne bi di ko yàqal wala mu raay ko wala mu di ko mu di ko dugaloo ci ay giraawali am na ci yoo xamante ni nag jinne moo leen di dugg nii rek ngelaw ak yooyu bu mu si ni doon suñu xoolee incha allah dinañ ko mën a saafara ndax am na ci yoo xamante ni man mënu ma ko faj boo ñëwee dama naan la mënuma ko faj ak loo ma mën di jox mm. parce que man tamit damaa am njaboot am na lu may bañ li ma mën a faj soo ñëwee incha allah ma faj ko li ma mënta faj boo ñëwee ma la mënu ma ko. muy Serigne Mbaye Niang docteur géeju waaye spécialisé wu ci lépp loo xam ne rek dafa aju ci mbirum feebaru rab ak jinne gi si aju rawatina li nga xam ne mooy lasraar leneen loo xam ne aussi soxal nañu bari ci société bi Serigne bi muy li nga xamee ni rawatina góor ñi la gën a yàpp muy li nga xam ne mooy néew kàttan góor ñoo xam ne ñu ci bari ci ñoom dañ naan stress liggéey bi la ñu naan stress moo tax amatuñ force ci ndax am nga solution boo indi lu jëm ci loolu waaw solution kay moom mënta ñàkk ndax yonent bi sallallahu alayhi wax ne al wiqaayatu xayrun min al ilaaj fegu moo gën faju ginnaaw nag fegu woo ba dara dal la da ngay dem nga faju ndax feebar faju ci jaam yàlla la bokk ndax yàlla moom moo wàccee jàngoro yi waaye moom moo wàccee liy faj jàngoro yi wa nunazilu min alquraani maa huwa shifaun wa rahmatun lil niin yàlla neen dama wàccee alquran muy saafara ñi ko gëm garab yi tamit sax fi nii ci àll bi saxu fi nii rek ngir nii dafa sax ànd ak ay njëriñ wa maa xalaq naa wal ardi ba ma baynahuma laahibin yàlla lépp lu mu def ci biir asamaan ak ci biir suuf rek am na njariñ xëy na kay ñun ñoo dul xam njariñ bi néew kàttan boo xamante dafa dab nit ki dañ koy saafara bu nekkee koo xamante dafay fooye boppam muy góor boo xamante day fooye boppam di seetaan ay film yu bon wala muy fooye awraam ba loolu dal ko dañ koy saafara su nekkee koo xamante dañ ko takk xala muy góor boo xamante ni dañ ko takk xala ba nga xamante ni moom tey bu amee soxna du mën a joteek moom kooku tamit dañ koy saafara waaye dafa am ñoo xam te dañoo am néew kàttan boo xam te da leen a dab benn mu ci li ñuy lekk wala mu nekk ci li ñuy naan wala mu nekk ñuy fawee seen bopp hmm. waaye su nekkee ki ko judduwaale moom kooku mënuñ ko faj ki ko judduwaalewul rek nga xam ne yow amoo ko mën a faj képp koo xam te ni judduwaale woo néew da ngaa judduwaale néew kàttan ko hmm. mun ko faj waaye képp ku mu dab hmm. koo xam ni danga nga yëg sa bopp wala ngay gaaw daanu wala doo yàgg kooku dañ koy saafara garab bi mooy sifaawu boo xam ni moom la ñu liggéey muy aju ci wàllu néew kàttan ba noppi day faj hémorroïde ballonnement képp koo xam da ngaa manqué appétit képp koo xamante ni tey sa yaram day tàng képp ko xamante ni da ngaa amee ndoxum siti koo xamante ni da ngaa amee ay drépanoog ay tuberculose feebar yi nga xamante ni ci deret lay nekk. Mhm. garab bii da koy faj. dafa composé juróom-ñaari garab lu ci mel ni jinjeer ak laaj xorom ak yeneen ak yeneen yu ñu ci boole yoo mm-hmm. xamante ni képp koo xamante ni jëfandikoo ko moo xam ci wàllu néew kattan laa leen tuddal de mm-hmm. waaye mbooleem feebar yi mu ci tudd muy jàngoro kajoor di émorite yooyu yëpp lii ma leen di wax da koy saafara si kàttanu yàlla garab la boo xamante ni mooy jaay boppam mm-hmm. ndax gis nañ ñoo xam dañuy jaay garab def ci ay affiches lu ne ñu def si waaye garab bi mooy jaay boppam ndax képp koo xamante ni jox naa la ko di nga ma ko laajaat parce que ay yu baree laa ci liggéeyoon waaye fi mu toll nii dafa jeex macha allah kon garab la boo xamante ni moom mooy jaay boppam macha allah. macha allah sëriñ bi bala maa bàyyi garab gi rek néew kàttan bu ñu ko waxee ñenn ñi dañ jàpp ni mooy ki nga xam ne du yàgg si jigéen ki nga xam ne day gaaw a yëg boppam hmm. kooku tamit mën na jëfandikoo garab waaw kooku mën na koo jëfandikoo hmm. képp koo xamante ni day gaaw a naa jëfandikoo garab bi hmm. ba tey jigéen boo xamante ni suy gis réglam day metti wala jigéen boo xamante ni dafa amee ay tardement si réglam garab bi da koy defar ba mu normal ndax garab bi garab la boo xamante ni dama ne la juróom-ñaari garab lañ ko composé te juróom-ñaari garab yooyu benn bu ci nekk dafay saafara dafay faj bu ci nekk soo ko jëfandikoo mën na laa faj moom benn garab bi rek léegi nag juróom ñaari yooyu yëpp la ñu liggéey ci anam bu mucc ay macha allah mu nekk garab bi nga xamante ni mooy Chifaawul Amraad. macha allah Serigne Mbaye Niang docteur borom Amraad ay numéro téléphone am ñu ngi leen koy affiché jamono ji ngeen koy bàyyi xel. Mm. Euh, Serigne bi Niang am na leneen loo xam ne tamit ñu bari ci ndaw ñi tamit mm. soxala nañ ko. Mm. xam nga ne ndaw ñi ñu ci bari ci ñoom dañuy wut liggéey ba sonn ñenn ñi naan dañoo umu ñi naan rabala jàpp ndax am na bayre boo xam ne ci li muy dox. mooy ndaw li nga xam ne dafa bëgg liggéey rek di ci dox bayre liggéey ndax am na Serigne Mbaye Niang. waaw bayre liggéey am na. dama ne la alxuraan amul dara loo xamante ni mu ngi ci àdduna di gàllankoor ci zaahir ak ci baatin bu alxuraan mun a saafara amul waaye nag nit ki moom mooy euh, xam buy buy faj aajoom mooy xam fan lay jëm ngir mu mën a faju ndax soo xoolee ñaan yàlla dafa nekk lu doy waar alxuraan yàlla moo ne day saafara loolu waxu yàlla la du deñ soo bindee suy jëfandikoo alxuraan gisoo xolaatal sa bopp waaye nag yenn saa yi day nekk jafe-jafe ci diggante kii ñaan ak kii muy ñaan maanaam connexion bi foog mu nekk diggante jaam bi ak boromam doomu aadama bi war ngaa mën a sell war ngaa mën a njub war ngaa mën a di dundee lu lew war ngaa mën a tegu ci yoon ba nga xamante ni boo nee allahuma sa ñaan du tag loolu nag da ngay gis ko ne man déposé naa ñaanlu naa def naa ba sonn nangam gisuma dara déedéet. yàlla dafa bayre liggéey bi rek moo manqué. waaw bayre liggéey bi rek moo manqué te bayre liggéey boobu. Mm. li koy maye lu yomb la mu ngi ci biir alxuraan. Mm. man defal naa ko ay nit du benn du ñaar fii si réew mi ak bitim réew. Mhm. liggéey boo mënti bëgg wala ngay déposé kayit. loolu boo ko sangoo nga déposé li ngay déposé moo xam da ngay jàkkaarloo ki ngay déposé moo xam da ngay def demande. Mhm. saa boo ko defee incha allah yàlla yombalal la ko. macha allah ndax loolu mu ngi ci biir alxuraan du fi jeex. Mhm. moo tax dama ne loolu jafe-jafe bi indi nit ñi ñaanlu naa dem naa fii. Euh, xawma awma ñaalu naa def naa ba sonn awma liggéey dangaa dajewul ak waaji rek ndax xul hal yastawi allazina yaxlamuuna wallazina laa yaxlamuun <laughs> ñi xam ak ñi xamul du ñuy yem kon bayre liggéey képp ku ko bëgg bu ñu jokkoo incha allah da nga ko am da nga am bayre hmm. bu dee da ngay jaay bëgg mu jar bu dee da ngaa nekk si place bëgg fa am tur kon kon bayre liggéey bi yemul rek ci ki nga xam ne dafa bëgg liggéey waaw dafa jaay bëgg bénéfice bëgg bayre ci njaay dugg ndax bu bu ñu nee bayre rek mooy loo xamante ni <laughs> da lay yombalal mooy loo xamante ni da lay jubóole ak nit ñi mooy loo xamante ni day yokk sa tur loolu mooy bayre bayre lañ ko tuddee mooy loo xamante ni da ngay am réussite ci lépp loo xamante ni yaa ngi ci noonu la tudd mais buñ ci jëflante incha allah lu yomb la loo xamante ni ci kàttanu yàlla da nga am allah ay numéro téléphone ngi leen koy affiché ci seen suufi écran jamono ji ngeen koy bàyyi xel leneen loo xam ne sëriñ bi ñaa du ma toog ak yow tamit sañu ma la ko laaj ndax euh, li nga nekk di ci yëngu suñu borom maye la ci euh, sëriñ bi lan nga ñu mën a wax ci nopp waaye tamit ki nga xam ne yitte woon na ko euh, bëgg si jëflante ak ki nga xam ne mooy sëriñ bay ñaa waaw jërëjëf sëriñ bi nopp mbir la moo xam te ni dafa doy waar surtout jamono ji ñu nekk ndaxte nopp lu am la ci alxuraan mooy boole ñaari nit ñu bëggante jëkkër ak jabar koo xamante ni da bëgg a takk ak koo xamante ni da ngay liggéey ak moom bëgg yàlla yombal sa diggante ak moom ngeen am ak jiboo ba ci kër goo xamante ni sax amuñu jàmm dañuy xuloo di rayanteeg yu mel noonu dañuy jëfandikoo foofu nopp ngir waa kër gi mën a am jàmm waaye nopp ñun liñ ciy jëfandikoo bu nekkee koo xamante ni kër gi mu dëkk amuñu jàmm dañuy xuloo ko xeex danañ la defal loo xamante ni boo ko defee ci xorom bi ngay xoromee kër gi wala ndox mi ñuy naan ñëpp dinañ nekk benn kazaalika tamit koo xamante ni yàgg sa borom kër nekkoo leen si jàmm muy góor wala jigéen boo xamante ni ka nga nekkal daal jàmm amu ci hmm. ndax léeg jamono ji ñu nekk da ngay gis ñoo xam dañuy ànd nit dem ci sëriñ dëddale leen nga gis ñoo xam te ni dañuy nekk ci place nit dëddale leen ngir bëgg a nangu seen place loolu yëpp am na. nit nekk am mbooloo nekk président fenn association wala mu nekk koo xam te ni la ñi dëddale leen ak ñi ngay ba du ngeen am jàmm loolu yëpp na. léegi nag nopp bi dafay ñëw nekk loo xamante ni tey buñ ci jëflantee moo xam nga nopp nit ñi ñu bëgg la wala nga nopp ki ngay bëgganteel wala nga nopp koo xamante ni sa soxna la wala nga nopp koo xamante ni da koy liggéeyal yëpp mën na nekk waaye nag nopp gi buñ koy def dañ koy def ci lu leer ndax nopp gi ñuy def suñ ko xësee ba def amatul dindi te léeg-léeg nga gis nit koo xam te ni dafay nopp nit ngir fowee nga gis nit koo xam ni day bëgg nit mu bañ mu ne ko dig ma topp far foofu tëpp ko tëkk ko dem di ko nopp ñun loolu duñ ko def. fii ëppee li ñuy noobee mooy ci diggante jëkkër ak jabar ak sëy boo xam te ni dafa tas ngeen bëgg a delluwaat képp koo xam te ni da ngaa tas ak nit nga bëgg yàlla boolewaat leen ngeen nekk si jàmm kooku dañ ciy jëflante. nit indi na fi xaalis ba taay dañu noobloo jigéen ñu bañ. jigéen indi na fi xaalis ba taay dañu noobloo nit ñu bañ waaye nag liñ ciy bañ xam nañ ko ndax am na loo xamante ni baakaar la noob nit ngir foowee ko noob nit ngir caaxaanee ko ñun loolu duñ ko def macha allah sëriñ bi yaa ngi koy wax léegi ñu bari dañ foog ne rek boo nee nopp mooy euh, boole góor ak jigéen yow sa nopp dafa mel ni tamit jéggi na loolu comme kër gu nar a yàqook yu demee noonu yëpp dangay liggéey ci nopp bi nga xamee ne ci nga nekk di ci nopp bi nga xamee ne yaa ngi koy liggéey waaw nopp boobu dana dama ne dafa généraliser mm-hmm. ndax nopp mm-hmm. li ñuy noobee rek la ñuy defee bayre maanaam secret yi ñuy jëfandikoo ci wàllum nopp moom la ñuy jëfandikoo ci wàllum bayre am naa ci nopp yoo xamante ni boo ko noobee nit kenn du mhm. leen tàqale nit du mën a dem ci sëriñ mukk ba def dëddale sa diggante ak moom loolu dañ bu dee jigéen la nga bëgg sa jëkkër yéen ñaar kenn du leen mën a tàqale noob googu am na macha bu nekkee góor la nga am sa soxna nga mhm. bañ kenn tàqale leen noob googu am na mhm. bu nekkee tamit da ngay liggéey ay nit nga bëgg leen a noob bañ jublu la noob googu am na mais noob gi moom mbir la moo xamante ni daal yéeme na. macha allah du lu ñuy daal. macha allah muy Serigne mbay ñaar docteur moom la rédaction Senbuzz di am ak jotaay Serigne bi lii di lasaraar suñu borom may na la ci ba lépp loo xam ne rek yaakaar nga ni askan wi dinañ koy soxla gëstu nga ba am ci ay tegtal ak it loo xam ne njariñ lay doon ci société bi ku bëgg am doom moom Serigne bi yan leeral nga ñuy nga ñuy indil ci ki nga xamee ni xëy na bëgg-bëgg mooy suñu borom dafa dogal mu tëju ci li nga xamee ni mooy mbirum doom wala fas yéene am doom ki ko bëgg ndax mën na si jëflante yow waaw loolu dafa bari si jamono ji te li koy sabab tamit dafa bari sëy na ay at te amul doom nit sëy na am amul at sax am doom yàlla mooy maye doom waaye nag am na ay sabab yoo xamante ni tamit dana tax nit ki bañ a am doom ndoxum sitim yi dana tax nit ki taw am doom waaye tamit rab dana jàpp jigéen ba du am doom wala saa bu ëmbee ëmb bi yàqu am na jigéen ñoo xam te ni yàlla dimbal leen ñu ngi jël ëmb waaye saa bu ñu ëmbee dafa yàqu am na góor ñoo xam ni seen ndox moo baaxul am na si jigéen yoo xam te ni nag dañ leen am dugal si ay xaatim yoo xamante ni duñ mën a am doom waaye am na ci ñoo xamante ni yàlla dogalul ci ñoom doom waaye ñun am na laax bu ñuy liggéey boo xamante ni laax bi yaakaar naa mu ngi bëgg a am na ñu ko xam si ñun ñi ñuy xam bu baax a baax xam nañ ne laax boobu ñuy liggéey bépp jigéen boo xamante ni jëfandikoo nga ko incha allahu taala da njaboot loolu. Mhm. waaye tamit euh, wax euh, ñi nga xamante ni ñooy takk soxna ak ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñu am borom kër jigéen bu la yàlla dogalee nga am boroom kër. da war a waajal sa bopp waajal sa bopp bi mooy mooy balaa balaa laa sa borom kër di jël mag ñi am na yu ñu daan def yoo xamante ni boo ko jëfandikoo gàkk-gàkk yi ak gaaf yi nga xamante ni dana jàpp jigéen ba du tee ba tee mu am doom. gàkk-gàkk hmm. yooyu day dañ. waaye loolu dañ kaa desal ginnaaw. d'accord góor tamit balaa ngaa jël sa soxna. Hmm. am na yoo xamante ni daal nga ko jëfandikoo pour yàlla musal la ci yoo xam ne seytaane yeeg hmm. yi nga xamante ni dana téye nit ki am doom. ndax soo xoolee seytaane yi rab yi nga xamante ni ñooy téye nit ki am doom saa bu nit ki jaxasoog borom këram ba pare ndox moom war a tax mu ëmb ndox moomu la ñuy fexe du jàll ci ndaw si mm-hmm. loolu mooy li nga xamante ni moo gën a bëri si jamono ci macha allah loolu nag ku mu daal incha allah boo ñëwee bañ xool ban façon la ci mm-hmm. bu dee ndoxum siti la mm-hmm. bu dee liggéey la kon bala nga xool ba xam ndax ndoxu siti la wala bi lan la foog ñu xool ko ndax yontu bi dana ilmu kullu sayin afdalu min jahlihi lu nekk nga xam ko moo gën nga réere ko maanaam nit du ñëw rek ñu xaatim jox nit ku nekk boo ñëwee dañuy xool ñu xam ndax yow mii lan moo la dal. Mhm. mën naa mën naa saafarawoo ci ñun wala mënut a saafarawoo ci ñun. macha allah ak koo mënti doon ak koo mënti doon macha allah. muy Serigne Mbaye Niang docteur Serigne bi nag secret bu mag bi nga xamee ni moom dégg naa ni euh, suñu borom tàggatal na la ko muy jaaro bi. jaaru bi nga xamee ni Serigne Mbaye Niang mu ngi koy liggéeyal ñenn ci ay wëllëreem te nga xamee ni njëriñ kese la bëgg naa vraiment nga wax nu ay njëriñu li nga xam ne mooy jaaru bi. waaw jaaru bi yaakaar naa mi ngi bëgg a ñun boo demee suñu compte yeeg émission yi ñu def yëpp yaakaar naa jaaro bi feeñ na ci suñu suñu liggéey bu baax a baax te loolu li ko waral mooy wér gi mu wér dama ne la nit su ne lee mën naa faj aajo te moom aajoom fajuwul li mu la wax loolu dina tey xel maanaam doomu aadama lépp lu mu lay wax rek xool ko ci boppam surtout ci mbirum ñaan yàlla ndax nit ku nekk bëgg nga sa bopp jaaro lu am la am na ay yonent yoo xamante ni seen secret nubuwa yàlla ci jaaro la ko jaarale ku ci mel ni yonent yàlla Daawuda ak ñe yonent bi ak ñeneen ñu mel ni ñoom awliya yi nitu yàlla yi mag yi tamit ñu ci bëri yàlla joxoon na leen secret boobu secret jaaro ci alxuraan la jóge mën nag am naa leneen lu ma ci liggéey loo xam ni nekkul alxuraan loo xam ni xam-xam bu ñuul la ci garab yi lañ koy jëlee su nekkee da sa loxo dafa bënn mënoo dajale dara ndax am na ñoo xam te ni suñu amee 100000 tant que 100000 yooyu jeexul dara du ñëwaat am na ñoo xam ni lu ñu liggéey loolu dafay yàqu lépp bépp liggéey bu ñu commencé di ko liggéey mhm. liggéey boobu dafay yàqu mhm. lépp loo xamante ni ñu ngi koy jëflante ak ay nit nga dénk leen ko muy xaalis wala matériel wala nga gérelo leen place mhm. place bi day dellu ginnaaw jaaro bi su loolu la aju su nekkee nag da ngaa bëgg bayre siiw ñu ñu dégg la xam na lu ñuy liggéey ci bakkanu bukki lañ koy liggéey def ko ci biir jaaro bi nga takk da nga am tur nit ñi dañ la dégg foo tollu nit ñi sa tur day jëm kaw da nga am coow jaaro bi ci noonu lañ koy liggéeyee mais jaaro bi li may li may waxaat ba tey jaaro bëri na waaye nag jaaru bi ñuy defal du jaaru boo xamante ni bu ñu ko defalee nit boo ko takkee xaalis bi dalay fekk si wala da ngay foo làmb da nga fekk xaalis déedéet da ngay ñu defal la jaaro la ngay jaay mu barkeel nga am jarata ñi ñi wuy si la nga am bayre am ubbeeku loolu mooy jaaro bi te jaaro bi xaatim bu ñuy bind la bu ñu ko bindee def ci sa tur ak sa turu yaay ak sa xaajo mhm. def ko yi wérdu ko juróom-ñaari fan nga takk ko macha allah ñun noonu la ñuy liggéeyee jaaro beneen mhm. yoon bi nag mhm. moom ndax loo gis am na lu ci gën a gaaw gën a gaaw gi tekkiwul ne alxuraan gaawul waaye dafa tegtale ne am na ci ñoo xamante ni setuñu boo leen joxee alxuraan seen aaju du faju seen aaju du faju wala day yéex waaw wala dafay ah, yéex ah. su ko defee nag am na yeneen yoon yoo xamante ni moom maanaam ay rapido la daal yoo xamante ni bu dee ci wàllu bayre wala wàllu jaaro boo ko boo ko jëfandikoo macha allah ak bayre tubaab ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew jaaro bi karaw tubaab lay àndal nga takk ko sa loxo ndeyjoor bu dee jigéen loxo càmmoñ ku ci nekk am na couleur booy takk mhm. peeru xaqiiqa nag lay nekk su ko defee boo ko takkee incha allah di nga am tawfiix mhm. te nit ku nekk tamit yaay xool ba xam ndeyjoor la ko war a takk wala càmmoñ du kum bu dee jigéen loxo càmmoñ la koy d'accord noonu la koy liggéey mm, macha allah muy muy Serigne Mbaye Niang docteur Serigne bi yaa ngi koy wax léegi mm. suñu mbokku moodu moodu yi ci laay des rek bala maa bala maa jeexal certainement mm. xam nga ne tamit bëgg-bëgg bi leen gën a yitteel foofu la ñu ne bu wooyee soo am tuuti xaalis tamit bokk na ci li nga xam ne mooy mbiru këyit lu leen di may daal seen nekkin foofu gën mën a ñoŋ ndax am loo xam ne mën nga ci dimbali mbokk yi ci ñi bëgg a këyit nekk foofu waaw ñi bëgg kayit nekk bitim réew wax dëgg yàlla ñooñu moom ku ne war na leen a ñeewantal ndax ay gor yoo xamante ni dañoo jógee fii dem di daani seen doole di ut lu ñu dundale seen njaboot képp ku leen mën a jàppale te yàlla tax na nga leen jàppale di leen wax ne tamit yàlla dafa bëgg nit kuy sabablu in tansurullaa yansurukum mooy da ngeen di utal yàlla lay yàlla dimbali leen yow mi bëgg këyit nga nekk bitim réew wala nga nekk fii Sénégal am na ci alxuraan loo xam ne dafay yombal nit lépp lu muy ut hmm. lépp looy ut nga mu jafe rek am na ci alxuraan loo xamante nii da koy yombal ndax yàlla moo ne woon yonent bi fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran lépp loo gis mu jafe bis dina mës a ñëw mu yomb waaye lépp loo xam ne dafa yomb bis dina mës a ñëw mu jafe kon àdduna yomb yomb yomb yomb ak jafe-jafe ñoo ñoo ñoo fi ne waaye su nekkee wàllum këyit ñu jëflante si incha allah di ci am résultat ndax bëri na ñu ci moo xam États-Unis la wala Amérique ak Espagne am na fa ay mbokk ak ñoo xamante ni yaakaar naa GP yi xam nañ ma bu baax mm-hmm. su dee wàllu kayit nga déposé incha allahu yàlla mun naa def bu ñu jëflantee si kàttanu yàlla du mu gaaw lool lool nga jot si su fekkente ne tamit wàllu bayre tubaab la mm-hmm. wala nga bëgg liggéey nekk foofu ci tubaab yi ndax soo xoolee am na secret yoo xamante ni ci nit ñu weex ñi sax la gën a gaawee mm-hmm. te mu ngi ci biir alxuraan am na ay sunguf yoo xamante ni ci nit ñu weex ñi la gën a gaawee te mu ngi ci biir alxuraan te yooyu ay mbir la yoo xamante ni jafewul jafewul ci ku ko xam buñ si jëflantee incha allah yàlla mun na si def tawféex beneen bi may waxaat tamit mooy ñi nekk bitim réew ndax gis naa ñoo xam ne dañoo nekk bitim réew waaye dañ leen a def ay naawtal yoo xamante ni buñ bëggee ñëw Sénégal duñu ñëw loolu gis naa ko gis naa ñoo xam tamit dañ leen a def ay sëf yoo xamante ni duñ mën a tukki saa ñu demee vi ñaani visa ñu résister leen gis naa ko ba tàyyi ñu leen jege def leen ko saa ñu demee dañuy ñaan lu ba sonn def lu ne waaye saa buñ demee ñaan rek ñu duñ leen may te duñ xam lan moo leen lan moo tax mayuñ leen te loolu li ko sabab njabar mu ngi ci. waaye kon secret tukki bi bëggoon naa la ko laaj sax secret tukki bi. Mhm. Euh, yenn ñi jàpp nga ni gàllankooru liggéey mooy tënk ndaw ñu ñu ci bare ci bari ci ñoom. pour ñu mën di tukkeeg yooyu. moom la moom la. Mhm. loolu loolu ndax am na si ñoo xamante ni tey. Mhm. iñaan jàpp na leen ba bëgguñ kenn avancé da ngay nekk ak ñoom ñu xam ne nga tàggu leen ne sa waay man kat damaa war a dem déposé naa visa damaa war a dem tukki sax ñu dem def loo xamante ni ci sa dàll. wala sa suufu tànk tibb ko doo tukki am na ci loo xamante ni boo ko tibbee ci tànku nit wala ci dàllam wala yëreem nga am foo ko def du tukki mukk te def nañ ko ay nit fii Sénégal ñoo xamante ni dañuy dem ba sonn. te duñ mën a tukki. macha allah waaye tamit rab dana téye nit ci tukki ndax am na ñoo ne seen rab bëggul génn. d'accord am na ñoo xam te ni seen rab bugguñu buggul génn mhm. saa buñ génnee dañuy am ay jafe-jafe ba dañuy ñëwaat d'accord waaye nag buñ ci jëflantee yow mi nekk mhm. ma ko ma li ma soxla mooy kon képp xam ne naa ci ay résultat ki nga fekkoon mu toog fii sànq mhm, magam bu jigéen maa ko ñaanal ba tukki maa ko ñaanal ba tukki ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi fi bëgg nañu ko kii nga fekkoon fii sànq de waaye dem France am na contrat maanaam yooyu ay mbir la yoo xam te ni du lu ñuy ndamoo mais yàlla moo ñu ko jagleel muy secret boo xam te ni maa ngi koy def ci ndoxu géej yaa ngi dégg bi ma ko koy wax mm-hmm. secret bi su ma ko ba bind bëriwul mm-hmm. ndoxu géej nga koy booleel ak sangoo ko boo paree nga saraxe ñaari dàll carax kenn mënul teye ba doo génn réew mi amul ku yàlla bind kuy taxaw ba tax na yow doo mën a génn réew mi tukki muy macha muy wàllu tukki kon mm-hmm. tamit euh, wàllu kayit yi tamit macha allah mbir la moo xamante ni ndax nekk bitim réew nekk fa ay at mënoo am kayit. loolu mm. dafa metti di déposé kenn du la euh, accepter loolu tamit dafa xaw a metti waaye alxuraan mhm. amul lenn loo xamante ni nit ki mu ngi koy jëfandikoo ci alxuraan te xam na mu koy jëfandikoo te du si gis résultat macha allah ñun daal loolu la ñuy wax jërëjëf muy Serigne Mbaye Niang docteur Serigne Mbaye Niang xanaa bala may jeexal rek li nga xamee ni nag suñu borom may na la ci tamit muy li nga xamee ni mooy xalwa nga xam ne ñu baree bari ci nit ñi tamit du ñàkk fajee seen soxla ci lii di xalwa wéeteeg sa borom mooy gën a yomb ci ñoom lan nga mën a wax ci xalwa ak i njëriñam mais également li nga xamee ni yow noonu nga noonu nga koy liggéeyee waaw xalwa soo xoolee léegi ñu bari dañuy tiitloo nit ñi ci xalwa boo ne xalwa rek ñu ne ah boo duggee xalwa da ngay dof déedéet. Hmm. lan ngay duggee xalwa xalwa lan ngay duggee xalwa xalwa mooy wéet maanaam yow boo tëju woon ci saal bi nii toog fi kes rek yaa ngi ci xalwa waaye alxalwatu lillaahi boo xamante ni da nga koy def ngir yàlla ngir jaamu yàlla ngir faj aajo kooku dafa am ay yoon yu ñu koy duggee ñii ci latif lañ koy duggee ñii ci basmala lañ koy duggee ñii ci fatiha lañ koy duggee ñii di salaatul fatiha ñii di salaatu ala nabi ku nekk ak ni ngay duggee xalwa xalwa soo tëju woon fii di wéru salaatu ala nabi ay junni junni amul dara lu la mën a dan benn danger bu la ci mën a fekk hmm. li ma doon wax sànq lu nekk nga xam ko moo gën nga réere ko xalwa ñu ngi koy dugal ñoo xamante nii ay boroom jafe-jafe yu rëy a yoo xamante ni dañoo nekk fu sori xaatim jotewul ci ñoom loo leen mën a jox pour ñu sangu wala ñu takk jotewul si ñoom bi maanaa nit boo xamante ni dañoo nangu alalam wala nit boobu dañoo jaay dooleem bëgg a te bëgg a nangu alalam boo xamante ni dafa bëgg ay ay milliards wala nit boo xamante ni day xëccoo nguur nit boo xamante ni dafa nekk ci entreprise bëgg entreprise bi dox hmm. wala koo xamante ni dafa nekk di xëccoo loo xamante ni ay mbooloo la koy xëccool hmm. wala koo xamante ni dafa bëgg a am tur benn hmm. muy xëccoo président wala muy xëccoo maire wala muy xëccoo directeur wala mu bëgg yàlla may ko mbooloo ñooñu la ñuy duggal xalwa macha allah am na ci yoo xam ne jarul dugg xalwa hmm. jarul dugg xalwa su nekkee ne am nga ijaaba soo hmm. toogee fi ngay toog hmm. jàpp ba sell def li nga war a def aajo bi yàlla mën na ko faj ci lu gaaw macha allah mais xalwa mbir la moo xam ne dañ koy dugg waaye du du ñëpp lañ koy duggal du ñëpp lañ koy duggal déedéet macha allah jot nañ kaa duggal ay nit ah. duñ ko duggal nit ba génn aajoom du faju xalwa boo ko dugalee nit ba génn muy juróom-ñaari fan muy 41 jours muy fukki fan ak juróom 15 jours doo duggal nit ki xalwa génn te kooku aajoom fajuwul. te aajoom fajuwul macha allah saa boo duggalee nit ki xalwa génn aajoom fajuwul rek xam nga ne loolu du xalwa. macha allah képp ku ñuy fal ci xalwa lañ lay falee. macha allah képp ku ñuy follee ci xalwa lañ mbir la daal moo xamante ni dañ koy def waaye du ñëpp lañ koy defal. du ñëpp lañ koy defal macha allah ñenn lañ koy defal macha ah, allah. Ah, ah. muy Serigne Mbaye Niang docteur Serigne bi Niang ñu doon am mbégte ci am ak yow jotaay ak it leeral lenn ci ay point yi nga xam ne ñu bari ci askan wi soxal na leen te yow suñu borom def nga nekk ci di ci yëngatu waaw maa ngi kontaan bu baax sama waa ji si dalal bi ngeen ma dalal fii si seen buzz. jërëjëf jërëjëf. Euh, di rafetlu bu baax euh, seen liggéey. jërëjëf di leen wax ne ñaan yàlla fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi. Mhm. adduhaa u silaahul muminina yuntu bi nee na ñaan mooy ngànnaayul jullit. yuntu bi saa salaam waxaat ne man lam yad'u llaaha taala gadaba alayhi ku dul ñaan yàlla yàlla dalay mere. yàlla waxaat ci alxuraan ne. ad'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen. Mhm. yàlla waxaat ci alquran ne wa isa saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daxwata daa'i isa daani mhm. kon ñaan force am na mhm. boo ko weddee ñaan am na boo ko weddee ñaan amul soo ko gëmee am na ñu la gën ñuy ñaanlu soo gëmul am na ñu la ñoo xamante ni ñoo la gën ñu ngi ñaanlu mhm. mbir la nag moo xamante ni dégg nañ ci yu bari ñi ciy dugg di ci def naka sudul noonu waaye àdduna lépp loo gis am na lu ci baax am na lu ci bon jinne yi am na ñu baax am na ñu bon nit ñi am na ñu baax am na ñu bon liggéey baaye am ñu cay yàq waaye li ci ëpp solo mooy hal yastawi lazina ya'lamun wa lazina la ya'lamun yàlla nee na ñi xam ak ñi xamul du ñu yem ki jàng médecine ba mën ko ba qualifié ci yemul ak ki nga xam te ni daa xëy rek di taqale di kii lépp gis nañ ko fii si ay faux médecine gis am na fi ay faux chauffeur am na fi lu nekk loo gis si àdduna rek am na am na ko mën am na ñu waaye doomu aadama dafa baax ci lépp looy def nga mën ko macha allah li sëñ Cheikh Ahmad Tidiane si Al Maktoum di wax ne ñaar yi yëpp dafa war a mokk muy ak lekk boo koy lekk li ngay lekk da nga ko war a sàq bi moom moom waaye métier it dafa war a moom